Madini, Madini, Madini, Madini Fasu, Madini Join, oh Madini, Madini, Madini Fasu, Madini Join, Madini Join, Madini Waruna, Monjoina. salaamaaleykum mbokki Thiès nuyu nañ leen yéen ñëpp seen tur seen sant kontaan ci di leen dalalaat ci seen émission euh, li fi nekk li fi nekk nag euh, xam naa ni namoon ngeen ko lool lool waaye ñëwaat na fii ci see fii ci émission ñëwaat na fii ci euh, Prestige TV ginnaaw loolu nag li fi nekk ñu fàttali leen rek. parce que nee naa leen émission la boo xamante ne lépp lu xew Thiès ak li ko wër dañ ciy daal di ànd ak yéen ba tax na nag euh, politique moom moo xew kon tey dañuy daal di dugg ci politique bi ñu ngi fii nag doxantu kër euh, DG Pape Siré Dia Pape Dia nag démb dañu daal di attaqué këram xamuñu ñan ñoo ko attaqué xamuñu nuñ demee dañuy daal di dugg ci biir ñu daal di ñuy nettali feeyeeg yooyu nan lay demee léegi léegi lay doon fii ci Prestige TV. am dein Lass wie dich am Tropmolabo. Die Gölle mir ist die Kausen, akama sola sol sol. Mawai nulai sidati, am dein Lass wie dich am Tropmolabo. moo toj li moo toj fii moo toj fii moo toj fee ci suuf gis nga xeer yaa ngi nii. bu njëkkaan doo fay dëkk ci mbedd yi tey ji mu doon dëkk ñu ñu lool. dañu xam a ak kanameerul te ngeen wàllu mbedd mi wow mu njëkkaan nga fay njëkk ci mbedd mi mu ngoo comme ni ma leen ko waxee léegi léegi ci seen émission euh, li fi nekk fii ci Prestige TV nee naa leen tey dañoo doxoon euh, kër DG Pape Siré Dia këram nag dañ ko attaqué woon démb ci guddi xamuñu ñan ñoo ko def léegi nag dañoo daal di ñëw fii fas yéene waxtaan ak waa kër gi ñu wax ñu fee nan la demee fii ci Prestige TV salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si naa def. sant yàlla bu baax noo tudd. Habib Niang euh, avenue ay Fall. Mhm. bof effectivement fi laa dëkk ci koñ bi fi laa fi ñu taxaw tey fiefu DG Siré Dia la bundu këram la kër fameem ah, li nga wax léegi am na effectivement démb si guddi eh, am na ñu fi jaar dañ koy def nag c'est la deuxième fois ñu koy def euh, def nañ ko avant samedi bi après élection yi jour élection yi mooy le dimanche. jour ci guddi gi def nañ ko jaar fii déconné comme d'habitude amul leneen quoi parce que du ñu naxante si si si si si ñii ñoo ko def ak ñii ñoo ko deful dafa loo xam ni dafa rafetul. surtout si nous avons ñuy ce sont les mêmes personnes aussi mon je ci camp il y a de cela trois ans même camp mon moom moo je la provocation yi lañ doon def kon su effectivement je dafa répercuté quoi mais il ah, je me rappelle y ben un moment je me rappelle Je lañ leen fekk te camp kon ci ñoom nga nekkoon bokk ci daan déconné. voilà bokkoon ci bi ñu daan gañe ñu daan ñëw fii suñ fii jaar caravane di déconné di sànni di toj ainsi de suite comme ni nga gis ni ñu def fii rek def ko balaa bi démb aussi balaa bi lañ njëkk avant ñuy ñëw fii bu Modou Fall pour ñoom waruñ ñàkk balaa bi centre bi. balaa bee kër Modou Fall. balaa bi quoi ma fa lañ njëkkee avant ñuy ñëw fii mooy seen euh, tournée yooyu ñuy def kenn ku si nekk. ku si nekk li nga def xam nga ko te ñoom personnellement gañe nga Thiès dama nga toog xaar say résultat mu jeex c'est simple jarul jaar kër kenn jarul jaar goxu kenn jarul jaar feef kenn jarul jaar fenn ñun duñ jógee fii naan dañuy dem ci feefu Idrissa wala fa Idrissa dëkk naan dañ fay marché wala dañ fay sànni xeer wala dañ fay def dara propagation la te suñ leen ci fekk see mën na indi ay jafe-jafe si te jaru ko jaru ya, ko sinu legi démb ba ñu attaquer kër gi ba yeen yéen naka ngeen comporté wo da ngeen wo police wala non comme d'habitude rek dina am tay su fi jaar duñ fekk ñep ay ñaar ñett ñent nit lañ fi fekk comme gawsu mi ngi feulé tok Moussa Diagne eh, ñen ñi lañ fi fekk du bari su ñëwé dañuy yuxu ci ré déna déna xam jël xéer sanni fi ci photo bi mu toj gis nga ko ni bi ñu paré fofu sanni ci kër gi comme niñ ko défé fenen ak fenen lan lañ doon wax ci ré déna waaw mais yow nee nga gagné kay dama nga tok xaar sa résultat ya nga yoré say PV ñoom ñu yoré sen PV tok si ñun ñu yor suñu PV mais jarul jubilé dama nga tok nga xaar vendredi c'est ça. mais est ce que yaakaar nga ni deuxième tour dina am. ñom ñoo gëna a xam ni su fekkoon day am duñ sonal sen bop si li du su fekkoon am liñ def dem avant ñukoy def am car yu fi jëgé dem buntu RTS lu tax wa Ndakaaru gëm ñu defal leen ko ñom personnellement buñu naxanté ci affaire yi ni kon buntu RTS li fa xewon ñi ko def Thiès lañ jóge Thiès di man image yaa ngi sama téléphone mën naa la si dem groupe gi yëpp ñëpp de A à Z mën naa la limal ñu dem ñëpp ñëpp laax mën naa ko lim ba mu jeex tàkk yi nekk si yeneen site yëpp mën naa lim ñëpp Thiès gii lañ jógee lépp fi amee kon su fekkoon loolu ñee fa ne waa Ndakaaru ñoo njëkk génn xeexal leen loolu bi bi bi Macky Sall yóbbu deuxième tour Abdoulaye ñu njëkk génn Dakar ca fes del dem biñu ñuy jut seen carte fi di réunir ainsi de suite diko envoyer dañ faté ni man ba légui may système bi may ci biir kon duñ jëgé fi di dem fofu di dégoné ji bañ ci japp ay deux ou trois personnes lan la DG wax ba mu yégué loy mom comme comme d'habitude fair play rek lay dund doko dégg ci télé doko dégg ci radio doko dégg ci ñak faara doko dégg mu wax moy nit ko xamni ni dama wax chaque jour que ni ki sax du politicien baax na rek la lay wax baax na baax na baax na mbaa kenn gaañu xool leen baax na bu leen riposé bu leen def dara amul ku lay wax loolu ñu toog di la dóor di la dóor di la dóor heure boo ñëwee wax ko wala soo paree mun la non bul fayu amul sax da ngay dem ba yow da nga naan kii ban doomu aadama la aussi bul fayu rek la xam amul leneen ah tey luñ lim ci yëg lim ci dégg laa wey mooy jour élection yi ci guddi gi li fi am ak tey ak démb ci guddi li fi am loo ci wax dana non baax na mbaa gaañuñu kenn xeer yi ainsi de suite baxna bu len def dara tok len bat bobu rek lay utiliser baxna bu len def dara yalla baxna aussi tamit yow nga ni yow ya yor so xoolee ñun sax la wax ñuy opposant fi a à lool la gis quoi ni yeen ñom ñoyor lepp ba pare yow ya gagné Thiès ken lam lamé yow ko parce que lool dafa dafa dafa dafa rafet que nit ki gagné la nga ni daf maa gagné mais nga gore nga ko gagné nga gore gore bi xam nga mooy lan nga dem toog xaar sa résultat mu génn nga fete ko mais mënoo chaque jour nga fete jaar buntu kër jàmbur sànni xeer dafa ñu dootul fete mais provocation la quoi te tey su si ñeneen jógee kër yi jóg xeex sànnante xeer am xuloo am xeex am amul sens kon boo amee ñu arrêté yooyu ñuy def noonu. ban message nga leen di ngay lancé. comme même message bi nga xam ne nii Siré Dia moom lay woote day nit koo xam ne nii tey ñoom ñooñu nga xam ñoo fa nekk ku si nekk si ñoom. di ay partisan am na lu mu la ji dañu baax li ma wax de ñoom ñi nga xam ne ñooy partisan di def loolu fuur yooyu kenn ku si nekk ci xale yooyu sa biir kër am na lu fa Siré a def kenn ku si nekk personnellement si ñoom ñi koy jiite am na lu la Siré Dia defal kon yamul ci parti parti de mais maa ngi wax dans le cadre général di leen wax ne xool leen si loolu nga xam ne waaye da leen jib teraanga teraanga mooy kenn ku si nekk si ñoom sa kër am na lu mu fa def su dee emploi am na lu def na ko fa su dee financement dugal na ko fa ñoom ñëpp nag laa wax amul ku Siré Dia bàyyi këram si ñu doon def loolu démb ku Siré Dia dugalul sa kër amul barke Serigne Babacar Sy ku ci ne Siré Dia defal na la teraanga su la ko defarul yow personnellement defal na ko sa rak wala sa mag wala xaalisam mooy financement yi nga xam daf koy jox ci quartier bu ne gox bu ne avec bu ne ñoom ñëpp bénéficier wu nañ ci. kon kooku su demee bay xol nit ñi di xol ñooñu xol partem di xol yeen ñi nga xamni ni yeen am ndam loolu mu leen koy defal sama ñi ñun ñi nga xamni ñoo deug ak mom ñu xol si loolu arrêté yi ñu koy def ñu këram nekk fi ay njabootama fi ne ay yaayam ak ainsi de suite ñu koy di fi yuxu di sanni ci kër gi rafetul nañu arrêté loolu jekul parce que jiw leen ko c'est ça le problème dañ leen di ñaan ngir yalla tey jii bëgguñu histoire xulewuñu xeexuñu yéen a ngi ak seen i PV téye ñun ñu ngi ak suñu yos téye nañu xaal vendredi ak jàmm su fekkee yéen a ñu félicité leen suñu gañee ngeen fer play def ñu ko rek def noonu c'est c'est simple amul daw amul xuloo amul dem ci kër ji amul amul fenn. mën nga jubilee mën nga jubilee feneen fudul fii fu jàmbur aussi. merci beaucoup c'est ça le problème merci soxna kontaan nañ trop aussi di wax waa Prestige seen liggéey rafet na ñu ngi koy suivre wax dëgg yàlla day tey jii lii am rek ngeen ñëw di ci gox bi di di di di nemmeeku nit ñi di xool ce qui s'est passé réellement pour am information bi daf cay baax tey su ñëpp doon def nii dëgg dafay leer fépp di ñëw constater sa sa bopp loolu mooy liggéey bi mais doo toog rek ay nit benn nit ñëw toog sa sa télé wax lu ko neex jóg dem yoonam parce que dafay am ay jeunes yu koy def. amul sens lii mooy yoon dox si koñ xool ni ah ñun kat constaté nañ lii constaté nañ lii daje nañu diw taxawloon nañ ko wax na lii wax na laa kon am nga version bu ñu la joxoon ak version bi nga xam ne yaa ko fekk si muy liggéey bu jéggi dayoo ñu leen di ñaanal lii yàlla na ko yàlla di fulal yéen ñi si nekk ku si nekk yàlla na nga am sa fi yu bopp ci dara yooyu yéen di sallallahu alayhi wasallam dañu dégg ngeen oh, euh, mu ngoog seen émission li fi nekk gis ngeen euh, leeral yi Habib Niang indi waaye nag des na parce que am na leneen luñ may signaler ci kaw dañuy daal dem xool ko ñëwaat. mbedd ah, ba tey ah, seen émission li fi nekk ni ma leen ko waxee léegi jóge nañu kër DG Pape Siré Dia jël nañ ñoom seen réaction waaye ba tey dafa des parce que ci koñ bi am na fi tamit benn kiosque bu ne moom benn kiosque buñ fi attaqué dañuy daal di wax ak euh, maire bi salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi noo tudd. Marème Lama. ñu mel ni nañoo da nga ne dañoo attaqué euh, fii ngay liggéeyee sa kiosque bi am fi ay yàq-yàq yuñ fi def naka la demee. man daa maa xëy su fajar teel ñu fekk ñu daaj ji cantine bi tegal ma kànnaar ga fële yóbbu gaz yi yóbbatu xaalis yi ma tegoon fii ñu jaxase yëpp gis na ñëpp lañ jaxase sànni ma ko fi chaque fois nag ñu bëgg jàppoon jàppoo ci affaire bi di ci mbubb woo di yàq nit ñi di jëlal alal nit ñi fan lañ ko teg pourquoi loolu ah. ñun nag fi ne dañuy ñaan yàlla ñun ñu dimbali si sécurité bu mat sëkk ndax fi ne gars yi song nañ ñu te ñun ñuy sonal vraiment ya mënatuñu woon liggéey yàq nañ suñu liggéey ñemeetuñu taxaw ci mbedd fan lañ ko teg loolu la ñuy laaj fan lañ ko teg waaw man ñaan lañ limbal man maram la ma. ci kàddu eh, démb démb bi ñu attaqué seen koñ bi aussi police ñëw na fi. police ñëw na fi ñaari auto police ñëw nañ fi si la ñu déparé daw waaye dañoo wàcc yor ay ngànnaay bëgg a xeexal nit ñi jigéen ñi bari nañ fi góor ñi bari nañ fi ñu song ñu dañoo mujj daw. ndax bañ ñu gaañ ñu bañ ñu gaañ jigéen fi nekkoon. loo tudd. Adja Ndiaye. Adja ñu fekk si leen fii euh, ci seen euh, koñ mu mel ni démb dafa am ñu fi ñëwoon di fi def ay yàq-yàq attaqué kër si Siré Dia ak euh, am na benn maire aussi bu ma wax ni kees kam aussi dañ koo attaqué am une fa yàq. yow naka nga dundee lool. xanaa mu metti ma lool ndax ko xam Pape Siré Dia xam ne kooku. nit ku teey la nit ku yaru la nit ku am diine ku am lislaam jiwul kenn ñuy ñëw di attaqué këram te fay loowul kenn ndax boo waxee danaan toujours rek dee leen naan tekk di seetaan ndax li ñu def teguñu ko fenn ñëw ci koñu Pape Siré Dia yow faloo goo ne yaa moom réew mi fekk ay poster di teppi ay marron beige riba nga teppi bàyyi fa say riba teguñu ko fenn di wane injustice eh, loolu fiñ ko li ñu def du deug du yoon ndax bañ ñëwé ba fii dañoo toj euh, vitre par sira jabi bi du yoon nañ waxante deug genre yi bu ñuy def ni bu ñu fan lañ jam fan lañ jam fan la monde bi jam ak fan lañ koy joyé même pas ay 20 heures nga say arme taxaw ne yow yaa mom fii ku and ak parti radio saga comme ne ko Marème lama waxé waxee ko fenn ëpp ñu kenn doole mais ki ñuy àndal nitu jàmm la kooku di dox ci jàmm di dox ci social di jàppale doomu aadama yi ñun de ñu ngi ci ginnaawam ba géej gi fer ndax fii Thiès moo ko moom keneen kuy waxit moo ko moom day sonal boppam kon bu yóbboo ñoom ñëpp nañ ne tekk teey te xam ne affaire yàggatul vendredi incha allah lépp leer. léegi yéen buñ fi ñëwee en tant que jigéen naka ngeen comporté wu. en tant que jigéen li ñu comporté woon mooy. duñu ngeen daw euh, ah man de du ma daw du ma daw. duñu fekk sunu leader mu defal nu lépp teral waa Thiès yi nekkal leen fi nekkal leen ci kër gi nekkal leen ci naaj bi def leen dans le confort ñuy ñëw ñuy daw déedéet am na ñu daw nag mais du pour ragal parce que ay gànnaay kon niñ ko waxee ku ko yore am nañu droit daw. mais ñun moom du daw. ban heure la. heure bi on ne pas parce que affaire bi bu muy ñëw côté ay à peu près vingt et une heures mooy mën naa ne bi muy ñëw fekk na ñii ñii fekke ñi dem li fi des bëriwul. mais police teel nañu gi police ñëwoon na après ci lañ daw te kër gi ay jigéen rek a fi nekk góor ñi balaa ñoo ñëw sori woon nañ kon dañoo war a sóor waa kër gi. ndax ay mag dong nga fi nekk ay mag yu jullite xamuñu jénn xamuñu dem fenn lu dul nekk ci seen kurus di ñaan ndax na ñoom jàmm lañu ñu xam te ci jàmm la ñuy dox te ci jàmm la ñuy sàkku ñëpp ba ñu ñëwee li ñu wax mooy toog leen rek seetaan leen dañ ñuy dóor dañ rey nañ toog seetaan leen waxuñu benn yoon nañ leen fekk si ci ay jàmm rek lañ doon dox ñoom. jërëjëf merci beaucoup. ok. mu ngoog seen émission li fi nekk nii rek lay demee fii ci Prestige TV nee naa leen lépp loo xamante ni xew na Thiès dinañ fa dem tàllal leen suñu micro ñu indil ñu ay leeral ba tax na tey ñu ngi woon fii euh, kër DG Pape Siré Dia ay waa këram ak ay militant am ñoom ñëpp wax nañ indi nañu ay leeral ci xew-xew bi fi xewoon démb ci guddi ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di leen jox rendez ba beneen yoon incha allah fii ci Prestige TV. Let me warn on, mon joy,